ñuy nuyu mbokk jullit yépp nuyoob jullit di nuyoob lislaam di nuyoobu sell di ñaan sunu boroom subhaanahu tabaraka wa taala sunuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njëggalam mu mel na ni dañuy dellu si ci sunu ndaw ñi muy jotaayal xam-xam ni ko ñu ko baaxoo waxee di jataayal fàttalikonte ci diineel islaam sunu bàyyee xel nag sunu jataay bi mu mujjoon ci sunu jataayal yóbbulum ndaw ñi ci téere bii ñuy wax jawharun nafiis ñu ngi doon jàngale ci julli ki nga xamte nii dafa feebar ki nga xamte ni dafa feebar ba amatul kàttanu taxaw julli wala amatul kàttanu toog julli nan lay jullee ñu tolloon ci ginnaaw boo xamee ne feebar na ba mënatul taxaw mënatul toog kon lim man mooy tëdd di julli kon mu war a tëddee wetu ndeyjooram julli bu ko mënul mu tëddee wetu càmmoñam julli bu ko mënul mu jaaxaan julli li ñuy bañ nag mooy mu mën a jaaxaan julli ba pare dem defee nu di julli moo tax mu teg ci lii daal di wax ne su mastinaaduna topp sunug wéeru allazi ca la nga xam te ni tabtulu dana yàqoo bi ci moom salaatu xaadiri xiyaam julli am kàttan ci taxaw fanta bi yeewul huwa te moom istinaaduna mooy sunug wéeru li say it ñeel dara nasxutu goog dana rot mooy loo xam te nii goog dana rot mooy loo goog dina daanu rek wéeru ci loo xam te nii dina daa dinañ daanu hinda suxuutihi fa rotam nga la daaman fa ka nga xam te nii yokku situ dana maan amma ida lam naku ndaal ndeem nekkuñu nasxutu di rot mooy di daanu wala saxata donte rot na say un bile mbir fa makruhun kon lu ñu sib la rawaw soloo nañ ko kon mu ne julli gam la waxoon ke tàmbali maawa ne la ki feebar di julli mën a taxaw julli mu mën naa taxaw julli mu dem taxaw wéeru di julli waxoon na la kooku julleem day yàqu mu ne wéeru googee nga xam ne daf koo def ci taxawaay ba di julli balaa moo yàq julli ga dafay fekk mu nekk ca la mu wéeru daf koo wéeru ci dooleem nga xam ne li mu wéeru da ciy sëf dooleem yépp nga xam ne bu loolu daanoo rek moom mu daanu bu boobaa kat la wéeru bi di yàq julli ga waaye bu fekkee mën naa taxaw mu taxaw wéeru waaye ca lam wéeru da cee wéeru wéeru xam ne bu loolu daanoo sax moom du ko yàqale ak julleem du daanu boobaa kat julli ga baax na kañ la julli ga yàqu daal mooy mu wéeru ci loo xam te ni daf cee sëf dooleem yépp nga xam ne bu loolu daanu mu ànd ak moom daanu boobaa lay yàqu julli ga bu fekkee nag bu daanoo du ànd ak moom daanu boobaa du yàqu julli ga nag waaye nag siit nañ ko waaw sit nañ ngay julli taxaw di wéeru fekk nga mën a taxaw jonn donte la nga wéeru sax wéeru woo ci bu baax loolu dañ koo sib mu ne wa intu gis ndeem daganal nga li xaadirin ñeel aji am kàttan ala xiyaami ca taxawaay ba julusahu ab toogam te nafalan ca naafile falantulaam defu ko yedd lakinnahu waaye nag fi xawli kulli xaalimin ci waxi bépp aji xam yéexu daa def na ko fay lëxu ñeel ko bi nif si ajril xaay mi genn wàllu yoolu aj taxaw ja mu ne nag dagat na ci ki nga xam ni dafay naafile nga xam ne moom jullig naafile lay julli dagat na ci moom moo mën a taxaw mu leer na ko ne mën naa taxaw julli mu tàyyee taxaw wala mu sonn dem toog julli julleem naafile mu ne kooku moom julleem baax la naafile daal bu neexee nit ki mu taxaw julli bu neexee nit ki mu toog julli waaye nag li am ci seen diggante ñoom ñaar mooy taxaw julli ci naafile ak toog julli te fekk mu man mën a taxaw wala fekk taayal dugg ko rek wala sonn mu taxaw mu toog julli ci naafile baax na waaye nag <clears throat> bu dee ak fay ki nga xam ne ni dafay taxaw naafile buñ ko doon fay fukki tiyaaba dañuy xaaj fukki yooyee fay juróom ya ki nga xam ne ni dafay toog naafile kon ki taxaw naafile muy ëpp ab yool ki toog naafile waaye ñoom ñaar ñëpp seen naafile baax na naafile daal nit ki bu neexee taxaw bu neexee toog <clears throat> wa wajawazu daganal nañ du xoolaha ak tàbbeem ci naafile man kaa xam te ni jalasa dafa toog su ma yaxuumu topp mu taxaw baxda zalika ginnaaw loole xisaa xiyaasal wa in daxaltaha ndaal ndeem tàbbi na waa anta te yow zoo xiyaam ngay boroom taxaw wa tajlisu ak sa ak toog baxdu ginnaaw ba falasta za malaam déet ngay boroom yeddaange in lam takun ndéem nekkoo bi niyatil xiyaami ci yéene taxawaay ba daaxilan nga aji tàbbi wala nga ne in lam takun ndéem nekkoo daaxilan di aji tàbbi ci julli ga bi niyatil xiyaami ci yéene taxawaay fa yum naxu kon def na la tere julu sub toogaay ba abadaa ba mu ne dagan na ci kiy naafile mu toog ba mu neex ko mu jóg taxaw maanaam dafa toog di naafile ba ci yàgg mu jóg taxaw àggale naafile ga ci taxawaay fekk dafa daan toog ci naafile ga dagan na ci moom dagan na ci moom it ba tey mu nekk ci naafile toog taxaw taxaw ba ci yàgg mu sonn toog àggalee naafile ga ca toogaay kon ñaar yëpp dagan na ci ki nga xam dafay naafile xanaa sax liñ ciy seetal mooy ki nga xam dafa tàmbalee naafile ci taxaw ba ci yàgg mu sonn toog waaye ki nga xam ne dafa tàmbalee naafile ci toog moom ba ci yàgg mu sonn taxaw kon la mu mujjee moo gën mooy taxawaay ba dara nekku ca waaye nag bu fekkee ne nit ki dafay naafile moom mu ne ne kat dogu ci naafile gi yéene ne dafa fas yéenee naafile ci taxawaay bi yëpp ba mu jeex kon boobaa moom. faaw day yeggale naafile gi ci taxawaay loolu dafa am ngànt waaw waaye bu fekkee dafa sóobu naafile gi ci taxaw rek doguwut ci ne day jeex wala mu sóobu ko ci toog doguwut ci ne day toog dafa ñëw rek sóobu ko ci naafile moo xam toog moo xam taxawaay ba ci yàgg bu ci bëgg rek mën na koo def ci biir naafile ga waa dañuy bàyyi xel tamit ne ki nga xam te ni dafa feebar. ba mënatut julli ci taxaw mu toog di julli wala mu taxaw wéeru di julli kooku yool bam mu daan am ci ci bu taxawee di julli yool boobu yépp moom lañ koy fay ndax dafa am ngànt ndax dafa feebar léegi ba mënatut taxaw mu toog di julli teewut dañ koy fay yoolu ko taxaw bokkut ak ki nga xam te nii day naafile mën a taxaw bàyyi ko dem toog di naafile ki nga xam ne yool ba dañ koy xaaj fay ko xa genn wàll ga bu dee ki feebar nag moom lu mu ca man rek fam man rek lu mu def danañ ko fay taxawaay bu ba nga xamee ne wér na lam daan naafee wala lam daan julli julli faata lu toll noonu lañ moo tax kon kooku lu toll nii lam daan ba mu lam daan naafeli wala boobu mu wéree lam daan julli ci farata yool ba mu daan am rek lañ koy fay donte day tëdd di julli loolu lañ koy fay yool boobu kon mu ne bu dee nit ki day li nag moom mu yéene day taxaw naafile gi yëpp boobaa moom li war mooy mu yeggale naafile gi yëpp ci taxaw waaye bu dee yéene wutoon dafa ñëw rek sóobu naafile gi yéenee naafile mu dem ba ci yàgg mu sonn toog wala mu naafile taxaw toog ba ci yàgg mu sonn mu jóg taxaw sawar yooyu yëpp dara nekku ca yëpp yëpp baax na lii li ñuy tere daal mooy bu yéenee naafile ci taxawaay ba jeex bu dogoo ak boroomam ci taxawaay ba jeex boobaa bu fekkee amul ngànt la war mooy mu yeggale naafile gi yépp ci taxaw loolu mooy yoon waaye bu dee dafa am ngànt nag mën naa abaay ndax ngànt moom day dabe kon bunt bi moo doon jàngale jullik aji feebar ji sagam feebar moom xaaru kenn kon nit ki war naa fexe ba xam bu feebaree nan nan lay jullee naka la koy defee kon foofu la yemale bunt boobu fas yéene tàbbi ci beneen bunt buy le nit ki nan lay fayee ay bori julleem nit ki nan lay fayee bori julleem kon xam naa dañuy wàcce suñu kàddu fii jox leen dig daje ci jataay bii di ñëw incha allahu rabbi ci seen jataayal yóbbulu ndaw ñi ñu laabalante ci suñu wàllu diine incha allahu rabbi kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan suñu boom defal ñu dégg ak topp defal ñu mujj lu rafet mooy ñu xewal yu bari tabarkeel ñuy sant yi ñuy teewlu jataay bi yépp ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay leen ñaanal yërmande yàlla ak ak njéggalam in uridu ila al islaaha mastataxtu ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa taala wa Amen.